katu miskit booy dàq dee lekk bu ñu lay dàqal dee lekk lekk nag li ci gën mooy jëfandikoo lu sell jamono ji nag fenn rek la am GIE Kër ya Yabousso ñu ràññee leen lool ci liggéey gu am solo yi nga xam ne jamono ji ñi ngi koy amal ah mbokk yi bi nañu leen lool ci liggéey solo gi nga xam ne rek ñi ngi koy amal teg ko ci xam-xam bu wóor lépp nag ñu koy defar mu sell lool ba mu mën a dem fu nekk ci àdduna bi dañuy defar ay cere yu baax waaw moo xam cere bu ànd ak laalo noppale lool te neex a jëfandikoo am nañu tamit ay caagri yu baax dinañu defar cere lay cere braay laalaw am nañu sangal ak araw ngir seeni xew am nañu cere lay ak cere ceeb loolu lépp rek mën ngeen ko am bu ngeen defee seen commande rek ñu andi leen seen ak liggéey ràññee gu ñu leen ràññee lool ñoom ñooy defar jus ami ñu ràññee ko lool mu nekk nag jus boo xam ne nag ndax itam neexaayam am ay parfum yu bëri te wuute tey nag ku ko mos xam ne nag wuute naag yi ngeen doon jëfandikoo mu nekk ay jus yu naturel bëri nag ay parfum yu bëri am na garage du Dakar bi fi mu njëkkoon a nekk bala ngeen a egsi ci oa wala ngeen woote ci numéro bi 77 802 30 42 tey nag seen liggéey set na sell na mën naa dem fu nekk loola tax nag ñu tàmm ko di ko jëfandikoo fépp ci àdduna bi yéen borom épicerie yi borom alimentation yi lu ngeen soxla ci yile rek mën ngeen koo am woote leen gaaw ci numéro bi 77 802 30 cinquante 015 19 56 76 015 cinquante 56 ak GIE Kër Yabousso dafay gën a baax di gën a neex.